sadid lisaani naabur joonooni safi amaani wasib baraa'i assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi doon si waat di sant yàlla bu baax a baax di dolloo ci ñaani sëñ Muntaxa seen borom yàggal ko lool ca wéral ko yàgg ci gannaaw jokko indi gannaaw ci barke Seexuna Xadim Seexuna sëñ Abdou Samad ñu ngi lay dolloo wax ahlan wa sahlan ci sa barab di yëkkati ay kàddu rek ci turu jëwriñ ji di jéggulu it kàddu yi nga xam ne ñu ko koy yëkkati waaye mu doon kàddu mbégte ak kàddu cant mu jóge fii ci daaray Nuuru daaray Touba Monza di benn bànqaar ci banqaas yi nga xam ne bokk na ci 18 safar safar bu ko waxee ëmb na lu toll ci juróom benn eh, juróom benn daayira wëlbati ko waat ànd ak Touba Monza ñu bokk di doon wasilatu rubu mu doon jamaatu wasilatu rubu mbooloo mi ci biir mbooloo moomu la bokk banqaas bi lëkkale ci 18 safar mbokk yi am nañu jóge 18 safar teewal leen fi ca Baye Seer nekk ca bopp ba waaye xam na jamono yi ni nga xam jombul daa nekk Sénégal ndax doon na daa bëgg dem waaye lu yabal na fi délégation bu solo ñoom sëñ Pape mu nga xam ne mooy secrétaire général bi nga xam ne moo yore mbooleem li jëm ci bis bi safar ak Wasila Turbo teewal na ko fi ci kooku rek bu fi teewee doy na sëkk ñu ko ak benn daayira boo xam ne ni sosoo na ci Touba Monza nekk fii ci moom it ñu koy wax saada zuraab Baye aat nga nekk ca bopp ba ca sëñ Maas Baye Maas waat bi muy teewal leen fi kon daal kàddu yi dañ koy ëmb ci Wassila Pro bu rek ñoo am mbégte ci daaray Touba Monza ci sab teewaay di la jéglu baax ci coono yi ak sa mbokk yu baax yi nga àndal di leen ànd ak ci barkeb Seexul Xadiim di jël ab ziyaar di ko teg nga tegal ko ca kilifa ga sëriñ Seex Suhaybu di ko ñaanal suñu borom yàgg ko fi lool ci wéral ko noonu it lañ nga lawal ñu ko ba ci kilifa gu mag gi sa xaritu bopp sëñ Muntaxa di leen ñaanal fan bu gudd wa ànd lool xam naa leen bëgg wax lépp moom dañ koy tënk rek ndax suñu kàddu danañ ci lot ndax xam nañ cofeel gi nga xam ne mbooloo mi am nañ ko ci yow waaye mbooloo mi ñu ngi leen di jéggul wax dëgg yàlla xam ne wax dëgg ku nekk xam nañ ne cofeel gi am ci sëñ bi ak sëñ bi ak cofeel gi am ci ñun waaye dafa tolloog rek buñ ko toppee xëy na njariñ yi ñu mën a génne lu bari bari bari buñ ko deful ñoom rek dana xaw a des ndax ku nekk xam na ne ay kàddoom moo gën a matale xëy na loolu rek moo tax ñu leen di soññ ci gaawante bi waaye ñu koy jéggalu bu baax a baax ndax xam nañ ne moom cofee ji fu ko waay takk paas na kon sëñ Abdou mbooloo may ngi ni di mbooloo mu tuuti ci biir kuréel yooyu ñu tudd waaye ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ci seen ñaan di am mbégte ba xam naa jotaay moom du jërë guddal li sabab bi yaakaar naa seen jëwriñ andi na ci lu bëree bëri di xam ne daal mbooloo maa ngi nii ànd kooku jaalibatul muraqib bi nga xam ne soxna may moom moo ko jiite ñoom ñoo doon ziyaare ñoom it wax dëgg yàlla ñu taxaw ñu taxawaay boo xam ne nii dëgg taxawaay bu mucc ayib la guddi ci seen biir dana ñëw di di ko ànd ak ñun mu ci seen taxawaay ca lépp loo xam ne ni yittewoo nañ ko ci suñu biir ñu ngi wétali ñam yi nga xam ne ñu ngi ko bërëb yépp it du manqué benn yoon ñu ngi koy indi loolu it ñu ngi koy xam ne daal wax dëgg yàlla lot eh, nañ ci yëkkati seen i kàddu waaye mi daal ni nga ko gisee eh, tuuti na loolu waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax aju mu jot dana fi wàcce kaamil loolu daal nekk muxaddamaat muxaddamaat yeeg ak taysiir yeeg kaan xaqal yépp yooyu yépp dana maase lu mu ci def su ko defee ñu soññante ci suñu biir ànd koon bokk yoo xam ne ni sax yàlla def na ñu ngi ci jotaay bi ñu nekkaat ci yeneen gox yu mel ne Angleterre ñoom ñun ñu jàppale ci kaamil bi nga xam ne toujours ku boo xam ne ni incha allah ko saytu ba bu matee ñu bokk ko jàng na ñëpp mosuñu ko jëlee benn yoon fii daal dañ ko jëlalee guddib laylatul xadir boo xam ne dafa tase ak bisub euh, alxames loolu dong mooy tax mu neenal jotaay bi waaye lu taw lu mu lu ñu ngi fi ànd ak ndoom njaboot gi euh, euh, ñun ko waxee woon rek dong yi ñu fi doon nafar xëy na gàllankoor bi doxoon ci diggante moo taxoon commencé buñ ko waaye ba léegi ñu ngi ciy saytuwaat ndax euh, euh, Sëriñ Tuubaa dimbaliwaat na ba lépp moom ni ko jëriñ waxee dellusiwaat na ab télécaméra rek lañ fi war a monté doo xam ne ni daanaka internet bi moo ñëwagut ñu commencé waat njàng mi ñu ngi ko doon jàngale incha allah waaye daal ñu ngi ànd ak mbégte ak xel bu sedd gu ñu di ko teg ci loxol sëñ Moussa jot nañu ko te xam na daal kàddu yi lu ñu ko yëkkati yëkkati doyut di la masawu baax a baax di am mbégte nañ wax dëgg yàlla ak cofoo nga xam ne yaa koy cofoo di ko jël loolu lépp ci loxo sëñ Daam ak sëñ Ablaay mii ca moom dañuy wax rek sëñ Abdou moom sëñ Abdou Samad mi yëpp la yàlla yàlla guddal fan wéral la gën laa kàttanal ndax taxawaay bi ngay taxaw ci yoonu murid ku nekk xam na ko loolu rek jaroon na sëkk ñu ne ñaanal guddeeg bëccëg kon daal yàlla yàlla guddal fan yokk wér gi ci barkab Seexul Xadiim xam naa damay bañ a guddal gudd na ba pare sax ndax xam naa li ma bëgg a génne lépp lu ma ko génne ci kàddu yi fasin tëggut waaye daal ñu am yéene ak xol bu sedd di la ñaanal suñu borom yàggal la fa yittewoon na ko nga yàgg ci sa kanam si man bu baax ci sa muntaxaa ak mboolem koo ko yéene ci barkab Seexuna Alxadim xam naa sëñ Moustapha kon damay wàccee kàddu yi yaa ko waroon a yëkkati sax waaye dañ doon jéem rek ñoo ngi jéggul lu ci dégg xam naa des na lool ndax mbooloo moom seen mbégte ak seen kontaante ñun bëgg a génne lépp mënuñu ko génne waaye laay sëñ bi xamal na sant nañ yàlla na leen ak sëñ Tuubaa taxaw ci barkab Seexuna Alxadim